mission bii nga xamante ne moom la yàlla teg ci loxo yi ñetti collectif yi ñu di ko dox may ñaan yàlla na ko yàlla oyofal te may leen ci ndam te nasaxal képp koo xamante ne taxaw nga ngir euh, dox ci diggante loolu nga xamante ne ñetti village yu lébu yi ñu ngi koy dox muy Ngor Yoof Wakaam ngir seen suufi maam yi nga xamante ne ñu ngi koy jël di ko caxat caxatee ah, di leen wax ne rek li fi jaar àdduna bi yëpp teg nañ ci seen bët ñëpp a gis nañu ko waaye li ko waral mooy lii nga xamante ne tudd naa ko muy mbiru aéroport bi ngeen may ma rekk ma leeral ndax boobu ba léegi ñu ngi noppi. te dañuy wax ne bu nit ñi di wax nga noppi dafay mel ni la wax ànd nga ci gis ngeen ne sorties yi ma génne yépp yéen presse bi yéen journaliste yi yéen a ngi koy gis defe naa attaqué wu ma kenn waxuma kenn lu ñaaw ndax kër gii di kër Seydina Limaamu Laay ku ñu xam-xam ne ci ay teggin rek lañu suñu kilifa yi teg ay worma rekk lañuy doxe ci tedd nga rek lañuy deme moo tax lu ñu ñàkk ci réew mi looloo ñu ko xañ ndax suñuy lewet suñu bëgg jàmm bu ñuy jël ab kaas sax ñu nar ñu ci indil problème ñu bàyyi kaas ba dem uti leneen xëj na nag ñi def loolu dañu doon tàntewaat ngir xool ndax dina yomb ngeen gis ne sortie yi bi ma mujj def ci télé bu ñuy wax wal fajri ci ngoon gi TFM jël ma ci journalu bi ma fa jógee am benn kilifa woo ma dem réunion ñetti collectif yi falaa jëkk pour tàggu ngir ñu may ma dem daje benn kilifa gu rëy ci dëkk bi ci biir réunion boobu bi may génn lañu ñu signalé ne am na koo xamante ne day ay waa këram nee nañu dinañu la attaqué tey ci guddi yow Seydina Issa Laye dinañu attaqué lenn ci membre collectif yi ñu tudd seeni tur dinañu attaqué kër yi nga xamante ne gis nañu ne doomi collect membre collectif bi ñu nga ca ñu sant yàlla gërëm ko te xam ne nattu moom buy ñëw rek nattu la ndax suñuy maam la ñu dund ci ay nattu ñun boobu ba léegi yàlla joxaguñu ko waaw li ñuy dund nii du asakaarul sax la suñuy maam yi daan dund waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi ma fa jógee dem tëjoo kilifa gi di wax hmm. booba sama téléphone mu ngi silencieux appel yi bëri lool yëguma ko bi ñu génnee laa ko xool woo jëwriñ bi nga xamante ne moom laa bàyyi suma kër mu ne ma day taalibey diw ñëw nañu fi yor ay jaas yi ak ay paaka di la menace ne dañu lay rey bi ñu fa jógee ñu xam ne foofu dëgër na ci lañu ñu dem suma benn kër mag bu ñuy wax soxna Sadio Laay bintu Baye Seydi caw Laay bu Seydina Mandione bu Seydina Limaamu Laay ñu fekk fa xale ya ñu menacé leen ak seeni jaas yi ak seeni paak ak ay ndér bi biñ fa jógee nag ñu jubal kër imaam Muhammadul Muxtaar Laay fa la dem bi ñu demee kër imam Mouhamadou Muxtaar Laay ñoom it attaqué waa kër ga muy njabootu kilifa googu ma lay wax ak benn nit koo xamante ne mu ngi fii ci yoof ñu am seeni nervi ñu ànd ak taalibe yooyu di ma wër loolu moo indi woon mbir mi bi ko saxaabay Seydina Limaamu déggee gis ne loolu du woon première fois boobu rekk ndax ki def waa ji def loolu ay jamono cantaan doon nañ suñu wayjur fii Chérif Abdoulaye ci penc mi mu daal di defoon lu mel noonu ba waa këram yi indi fi génn fi ay jaasi génn fi ay paaka ak lu ne loolu ñépp xam nañu ko appeelu Seydina Limaamu fii ci cérémonie officielle bi waa këram yi dóor nañu fi pompe à moom waa jooju yéen ñépp xam ngeen ku ñuy wax Mass Mbengue ca Ngaparou ci dëju waajuram attaqué nañu ko même nit ñooñu ci ay jaasi ak paaka ak leneen ak leneen lu mel noonu damay wax ne ba ci jàngi doole lislaam sax boo leen fàttee indi woon nañu fa bruit bu mel noonu man maa nekk ndaw loo xamante ne man Seydina Issa Laye man la ñu mujjee attaqué waaye nag jàllul ndax li tax jàllul kër gii de am nañu respect lool am nañu worma lool am nañu teddanga lool waaye ni ko suñu mag ji waxee waaye kër la goo xamante ne duñu nangu mukk ñu di ko déstabiliser di jaar ci njabootu Seydina Limaamu Laay te déstabiliser boobu yéen ñëpp xam ngeen ni mu ngi jëkkee ci benn borom ndombu tànk boo xamante ne mu ngi jëflante ak le président de la république ci ministère am la convoqué jox audience ñetti collectif yi ba ñu ñëwee man nekkuma woon ca audience ba ñu waxtaan lañuy ñuy waxtaanee ba noppi ba ñuy paree bay ñaan mu ne leen balaa ngeen ñaan may leen ma ma sànni ci ma sànniwaat ay kàddu ñépp di ko déglu mu ne dama bëgg ngeen wax Seydina Issa Laye ak ñi mel ni moom ci kër maam Limaamu Laay soi-disant les petits marabouts yoo xamante ne tekkiwuñu dara ci yoof nañu téye seen gémmiñ ndax man duma seen moro loolu nag damay wax ne aw saaga la woo xamante ne Seydina Limaamu la ko adressé ndax Limaamu dafa waxoon ne ginaar nen na nen ya naan ni naan ginaar nen na nen toj toj nen ya naan ko ñu ne ko Limaamu loo bëgg a wax foofu mu ne lépp lu ma jur rek Limaamu la kon maa ngi interpeller le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ci ay teggin ci worma ci teddang ne ko menace bii nga xamante ne moom la jëwriñam boobu def jëmale ko ci kër Seydina Limaamu Laay naka gaaw faj nu mu gën a gaawee bu jëree ay sanction la na jël ay sanction yu wóor mu tekk ci kawam wala lu ko mooy ñun njaboot kër Seydina Limaamu Laay dinañ xam ne dañuy dinañ xam ne kon naar bu ndaw bi lii mu wax ci naar bu mag bi la ko déggee ah bi loolu amee nag ci la taalibe Seydina Limaamu Laay yi saxaaba yi taxaw nag ne lu ëpp tuuru dinañu ko dakkal comme ni ko suma mag ju tedd ji nga xamante ne boobu ba léegi lu mus a jóg ba ci keroog bi ñuy taal Auchan yi moom mii bokkoon na ci ñu taxaw moom Seydina Ababacar Laay ibnu Seydina Isaa ibnu Seydina Mandione ibnu Imaamallah ne maa ngi leen di ñaan dëkk bii di dëkkab Seydina Limaamu bu fi dara takk bu fi dara jóg ne lépp sedd na lépp a woyof kon kër gi ngeen xam ne yàgg nañu wax yàgg nañu woote jàmm fi may tëj suma waxtaan ci bi nga xamante ne événement yooyu am na ba xale yi xeex yàlla dogal na mu am tuuti ay blessure rekk yoo xamante ne damay wax ne euh, mittiwul waaye ñu ngi massaw képp koo xamante ne jëli na ci gaañ gaañ ci bis boobu waaye it maa ngi gërëm communauté Layène bi yépp ndax bi ñu déggee loolu rekk lu gaaw gaaw Yoof Ngor Wakaam Ndakaaru dama ne fu Layène nekk te jege te mën a gaaw ñëw rekk defe naa jël nga oto ñëw fii ci dëkk bi kenn xaju fi woon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen massaw waaye it maa ngi massawu waa Yoof gépp maa ngi leen di baalu àq ci tuuma googu nga xamante ne tuumaal nañu ma ko te man ku ma xam-xam ne du ma nitu ay ci jàmm rekk laay dox maa ngi gërëm mbokk yi nga xamante ne ñoom it bi ñu déggee li ne taal nañu sama kër jege ñu sax sama kër mosuñoo taal suma kër waaye ba ñu waxee loolu damay wax ne bitim réew ak biiram réew mii di Sénégal yépp ñépp a woor nañu ma masawuma xamal ma ne ñu ngi ci suñu gannaaw di ñu jàppale kon daal maa ngi wax ne man Seydina Issa Laye ci sumay ndigali kilifa ci seeni ndigal ak seeni ñaan maa ngi leen di wax ne jox nañu ma ndigal ne ma lii nga xamante ne maa ngi koy liggéey ak ñetti collectif yi naa ko continuer dëggal ko lépp loo xamante lépp loo xamante ne taxawaay la bu ci kër Seydina Limaamu Laay war a am naa leen ci taxaw dinañu accompagner ak ay ñaan te fépp lépp loo xamante ne taxawoon naa ko ci incha allah dinañu gën a yokk yokk yokk ba ñu xam ne lii ñuy xeex intérêt yoof la intérêt ngor la intérêt wakaam la ndax ñu ñi di ñetti collectif yi ki mujjee juddu tey jii ci ñetti dëkk yi ñu ngi xalaat avenir am bu ëllëgee moom ak ak njabootam moo tax ñu xalaat ne aéroport bii dafa nekk réserve boo xamante ne dafa war a doon patrimoine lébu gi